أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصره المذنبة بتقوى الله عز وجل جعلنا الله وإياكم من المتقين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy ayaamun garib ay bëccëg yu doy waar ay bis yu doy waar ay bis yu yéeme yoo xam ne tey nun nu ngi koy dund ñun jullit yi bis yu doy waar bis yu ñépp a war a waaru lu tax ndax valeurs yi lañu changé al qiyam ak axlaaq al xasana jikko yi rafet yi valeurs yi loolu lañu changé jullit yi yor yeneen i gis-gis yeneenu nattukaay yi ba tax tey ñuy dund ayaamun garib abaa'un wa ummahaat yahtamuna bittaami wallibaas lil abna wa yansawna garsul qiyami wal axlaaq nga gis ay ndey ak ay baay ay borom kër ay kilifa yoo xam ne la ñu yittewoo ci seeni kër mooy lekk naan koddaay fay ndox fay courant faj loolu dong la ñu yittewoo seen kër wa yansawna xirasil qiyami wal axlaq ñu fàtte ne dañoo war a jëmbat dañoo war a tàggat dañoo war a yar seeni njaboot ci ay jikko yu rafet ak ay valeur yu am importance kilifa yoo xam ne mbirum àdduna rek moo leen yitteel ci seeni biir kër waaye yar yaru lislaam jàngale tawxiid jàngale sunna xamal seeni doom alquran xamal seeni doom sayduna muhammad xamal seeni doom lislaam loolu moom jeex na mbaa añ nga mbaa reer nga mbaa faju nga mbaa guddewoo biig mbaa mbaa mbaa loolu rek amma julli nga déedéet amma jàngi nga quran déedéet amma lépp lu aju ci wàllu diine seen yoon nekk ci moo tax mu nekk ayaamun garib ayaamun garib muwazzafuun laa yuxlisuuna fi amalihim bi daawa qillatu rawatib wa nasawna an allaha yubaariku fi rizqi alxalaal wa yamxaqu alxaram ay liggéeykat muwazzafuun ay fonctionnaire ay liggéeykat yoo xam ne du ñu sellal seen liggéey yi fa ñuy liggéeyee du ñu xëy heure du ñu wàcc heure du ñu respecté liggéey bi soo leen ne waaw ñu ne non liñ ñuy fay dafa tuuti moo tax man du ma xëy heure balaa may ñëw damay jaar fenn dóor mart ba pare doog a ñëw wala bu ma ñëwee ma wekki sama veste wala sama grand mbubb fi may toog ñu xam ne maa ngi fi ndeke doxi naa samay soxla lu waral li ngay def parce que liñ may fay dafa tuuti ñu fàtte ne yàlla tabaraka wa taala day def barke ci mbir mi lu mu tuuti tuuti soo sellalee yàlla def ci barke lu mu bëri bëri bëri soo sellatine yàlla daal di koy mab wallahi du la jëriñ lu dul ay ordonnance lu dul fay courant lu dul fay ndox lu dul jënd ration xaalis bi daal di jeex tàkk dara du ci am barke soo sellalee liggéey bi yàlla def ci barke soo sellatilee liggéey bi yàlla daal di dindi barke bi nga am alal ju bëri te du la jëriñ dërëm tey loolu moo am Sénégal ay fonctionnaires yoo xam ne seen liggéey duñ ko sellal lu leen neex la ñuy heure bu leen neex la ñuy xëy heure bu leen neex la ñuy wàcc lu leen neex la ñuy liggéey liggéey ñaari këy dem dugg ci bureau yi di waxtaan bu dee hôpital nga xool kenn wër ba nga doyal nga ñëwaat nit ñi xëy depuis quatre heures du matin léegi léegi fii may xutba lañ ma ne benn jigéen boo xam ne dëkk ak dëkk la jóge dafa jóge Fuuta ñu ne ko gynécologue bi day risaatool la nekk pour nga gis ko dangay bàyyi ba suba nga dem ndaw si xëy a fuuta laa la wax 4 heures du matin yegg si rooso rang ba yegg ñu ne ko waaj a xëy lu tey dellul ba suba suba lay ñëw wala mu war a delluwaat fuuta war a ñëwaat suba loolu ngeen defe ne kooku liggéeyam am dina am bari kooku bu doon am un milliard salaire du ko jëriñ dërëm loolu tax ñun ñëpp dañuy am mais du ñu jëriñ c'est parce que sellul liggéey bee sellul ixwatal iman أيام غريب شباب وشابات يقضون الساعات الطوال مشيا ولهوا في الملاعب لكن يتعبون في ركعة الأول ay xale yu góor a ngi nekk ay xale yu jigéen dañuy yendoo lambar lambar yi guddi ak bëccëg fu ne danañ fa dugg boo demee ci tefesu géej ñoo fa fees boo duggee ci stade yi ñoo fees boo duggee ci danse yi ñoo fees dañuy fanaanee dox yendoo dox fowukaay yépp ñoom nga fay fekk ci jardin public yi waaye ndeysaan lu yéeme mooy premier rakk rek dañuy sonn mënuñoo taxaw julli benn rakk rakka boo julli tey nga jàng sax lam yakuni lazina kafar nga dégg gaay naan noo imaam du mën a guddal quoi léegi yëpp dañuy dóor mu daanu rek na gaaw rek laa ilaha illallah kenn ci ñun mën na taxaw taxaw bu yàgg ci julli ku taxaw ci yàgg dafay commencé wenglu di dënglu te da ngay yendoo dox ci say business yendoo wër ba tas wu la neex nga def ci biir dëkk bi dara desul lu dul julli raktak dóor mu daanu gaaw leen dañuy dem waaye amuñu temps waaw business bi xaaruñu gars yi dañuy dem nañ gaaw nañu laa ilaha illallah bu dee ci wàllu adduna kenn du wax dara ñëppay toog même sax jullee néew da ngay dégg bu ñu taxawee tuuti di seede néew bi da nga dégg mag ñi mënuñoo taxaw nañu gaaw julli de mag ñi mënuñoo taxaw te mag ñi mën a wër mag ñi mën a lambar lambari ci xew yi di ko togg di ko seede mag ñi mënuñoo wër te mag ñi di toog ci grand place yi di damee suba ba ngoon mag ñi mënuñoo taxaw te mag ñi nekk ci caaxaanikaay yi lépp lu jëm ci wàllu yàlla dañ naan na gaaw lépp lu jëm ci sunu wàllu àdduna dañ koy gérer jël sunu temps buñ ne président mooy ñëw gars yi ban heure lañ koy teeru ji buñ ne combat lamb bi ban heure la ñuy dem dagg ticket yi buñ ne tey équipe bi ci koñ bi mooy finaalu ban heure la ñuy dem ci stade bi 8 heures du matin kañ la ñuy ñibbi si 9 heures ci guddi buñ nee taxawu julli kenn mënut a taxaw benn rakk loolu nga gis nga commencé wengul waaye naan julli gi daa yàgg jàng mi daa yéex daa diib imam il faut gars yi gis ko hors antenne wax ak moom nay gaawal julli gi. 5 minutes 5 minutes sunu dund la ñuy jox yàlla julli suba lu mu gudd gudd 5 minutes la boobu si ñooñu sax ñooñu ñu baax ñi julli tisbaar 5 minutes. julli takkusaan 5 minutes muy 15 minutes julli timis 5 minutes muy 20 minutes julli gee 5 minutes muy ñaata 20 minutes sa dund gi yëpp 24 heures bi 5 minutes nga jox yàlla ñaata nga jox sa magasin bi ñaata nga jox sa boutique bi ñaata nga jox grand place bi ñaata nga jox say doom ñaata nga jox télévision bi ñaata nga jox portable bi loo jox Facebook loo jox WhatsApp loo jox YouTube loo jox ku nekk continuer ko am maa yàlla 25 minutes su ma jullee suba pare naa ci su ma jullee tisbaar pare naa ci su ma jullee takkusaan pare naa ci su ma jullee timis pare naa ci gee pare naa ci yàlla bu subaati insha allah jox naa la rendez-vous asalaatu xayru mine naw mi ci buntu jàkka ji ayaamun garib ay xale yu góor yu mën a wër mën a entraîner daw ay kilomètres boo leen nee benn rakka ñu ne la dañoo sonn imaam bi dafa mën a guddal ñun jun ñu lay jàkk jooju jàkk rapide la ñuy jullee ku bañ station monte fa ngay dem ayaamun garib shabab shabab yasma'una al aghani bi sadrin rahib wa idha sami'u kalam allah daqat suduruhum ka'annahum yas'aduna fi as-sama' ولما يعلمون أن الحلال لا يخالط حرام ay fan yu yéeme lañ nekk ay biccëg yu doy waar ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen ay jullit yu góor ak ay jullit yu jigéen mag ak ndaw déglu musique ci dënn bu yaatu dënn bu féex dënn bu ubbeeku la ñuy déglu musique kenn ci ñun du xat kenn ci ñun du xat looy déglu musique da ngay nekk féex da ngay dégg sax ku wax ne su ma dégloo kasetu diw bi sama xol bi day féex day set axaani di déglu ay way ci dënn bu yaatu ci kontante waaye koo ci tegal kàddu yàlla dënn bi daal di xat kenn mënu cee déglu waaraate ñaari minute kenn mënu cee déglu alxuraan ñetti minute kenn koo ne yàlla mu ne la ond bi ond bi ond bi man rajo bi du ma ko déglu parce que kii yàlla yàlla yàlla yàlla kii dafa soxor kii safara guddi safara bëccëg kii kii day lakkaate kii kii kii kii buy déglu musique nag yokkal yokkal yokkal tuuti waa doy na macha allah bàyyil noonu benn mbokk nee na paa yi démb paa yu démb yi laa wax de waxuma paa yi tey boo tegoon musique dañ naan fayal paa tey dañ naan wàññil ba pare yor course gi di zikkar di yëngalaale bopp bi ne wàññil wàññil wàññil hakaza ayaamun garib ayaamun garib foo tur na ci dëkk bi lool la xew boo dem lool la musique bi la ñuy ngénte moom la ñuy takkee moom la ñuy teeroo gan yi moom la ñuy moom la ñuy ku am sa gan sax foog nga teg musique pour nit ñi ñëw ayaamun garib ñun ñëpp bu ñuy déglu musique suñu xol yi day feex bu ñuy déglu alquran xat bu ñuy déglu waaraate xat bu ñuy déglu jàngale diine xat rajo bi dafa ëpp wàññi leen ko ñaata yoon ngeen di dégg ñu naan jàkk jàkk ñoo mën a sikkar dañuy yuuxu guddeeg bëccëg waaye amma bu ñuy teg musique ci koñ bi ah rëy gi sax waa ji romb ne yéen de démb woowu leen ma sax pourtant mu ne ngeen maa woo ci koñ bi laa bokk ndax démb woowu leen ma ndeysaan allahu akbar ayaamun garib ñooñu di def loolu ñu fàtte an alxalaal laa yuxaalitu xaraam ñaar mënuñoo daje musique ak alxuraan mënuñoo daje ci xol musique ak alxuraan mënuñu daje ci benn dënn imaamu Malik bañ ko fekkee ci jàkka juma jumaa yonente bi mu toog ñu ne ko Malik looy wax ci musique mu ne laa yasma'uhu indana illa alfustaq képp ku koy def di ko déglu kàccoor nga mu daal di xëm ñu yenoo ko ci jàkka ji yóbbu ko kër ga muy sotti ko ndox imaam ximmilu ko naan hal yasmauhu muslim ndax ab jullit dina déglu musique hal yasmauhu muslim bi ñu laajee abu hanifa nu'man ibnu bashir loo wax ci xina mu ne simaul agani fisq wa talazzuzu biha kufr déglu musique bandi moo koy def bandi ñu ne ko ku ci kontaan nag mu ne kooku ab yéeféer la la ilaha illallah déglu musique mu ne bandi moo koy def ku ci kontaan mu ne kooku ab kaccoor la ab yéeféer la wata lazzuzu biha kufru la wax ku weddi yàlla rek mooy mooy mooy déglu musique di ci kontaan ayaamun garib ay bis yu yéeme nastari ma lazza wa taab wa qalla wa kasur wa nadfa bil mi'at wa indama najid sunduqun lis sadaqa nabhas anil amlati al ma'diyah لنلقيها ونفتخر باستماع صوتها في قاءة الصندوق fan yu yéeme lañ nekk bis yu doy waar dañuy yor sunu alal jure gaañ ñi di jënd lu nu neex ci sunu matériel yu dund àdduna lu luxe rek la ñuy dund lu luxe lu rafet lu luxe lu rafet suñ nee kees géede keesu jàkka ji la kees géede yi dañuy laaj sarax wala dañuy laajal jullit bee ndimbal waa ji bu dugalee loxo bi ci poos bi li koy kontaanloo mu génne benn pièce boo xam ne bu ko tëmbalee ci kees gi day dégg affaire bi naan këng mu yegg si na mu yegg mu ne saraxe naa saraxe naa balaa waa ji kontaan cent franc juróomi dërëm deux cent cinq cent yooyu nga xam ne pièce la yooyu lay génne ci biir li mu yor yépp su dugalee loxo bi ci poos bi xel mi day contact ak loxo bi loxo bi naan ko moytul bii yi biey yi côté bii la nekk nga gis loxo bi nekk ci biir tubéy bi ci poos bi wala ci mbub mi di di di falax biey yi naan ni attention bii 10 000 bi la est-ce que bii du 5 000 bi bii 1000 francs bi la de non bii téeméer bi la xaaral même bu ñëwee ci pièces yi sax loxo bi day xoos ci biir di xoos di xool bii lan la bii bii téeméer bi la ndax côté bi yëpp mu yëpp la moo am xoos xoos yi moo gën a ngande bii 200 bi la waaw bii nga xam ne nag lépp xoos la bii 25 la mu daal di koy jël ndànk daal di yërndu ne nii xool yërndu mu gis muy 25 mu daal di joxe fi sabilillah allahu akbar laa ilaha illa allah yàlla waxoon lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanaalul birra du ngeen mën a am baax du ngeen mën a am diine du ngeen mën a baax lu dul li ngeen gën a bëgg moom ngeen di joxe ñun tey bu ñuy joxe yére bi day ràpp daal yi day ràpp même bu dee téere alxuraan sax day ràpp sooy saraxe lu ràpp sooy joxe lu ràpp looy def lu ràpp ndeysaan waa ji dafa sukuraat sukuraatul mawt ñu dégg mu naan yaa layta kaana baida يا ليت كان جديدا يا ليت كان كاملا يا ليت كان جديدا يا ليت كان بعيدا يا ليت كان كاملا ñu ne ko waaw yow de sànq feebar bi bi mu la jàppee wax nga daal ñetti wax yu yu jaaxal mbooloo bi yëpp dañoo dégg nga ni aka neexoon muy lu sori aka neexoon mu sori mu ne waaw yàlla ma woon ci sama sukuraat bi benn mbokk bu ma doon dimbali ma doon def itikaaf ci jàkka ji ma dégg muy laajte benn kër bi ñu bi mu taxawee ci buntu jàkka ji daan ne kenn xamul diw fu mu dëkk mu ne maa kay ma ne ko man xam naa ko mu ne kooku de laa soxla maa ngi koy wër ba ca bi yëpp gisuma ko mu ne ma daal di génn jàkka ji jàpp ci loxo bi yóbbu ko ba ci kër kooku ma won ko foofu la ma yàlla won ne ma li ma dimbali waa ji yàlla jox na ma ci benn satu aljanna ma ni dafa waroon a sori lu tuuti lii rek laa dox am aljanna kon bu sori woon lan lañ may fay ñu ne waaw dañoo dégg nga ne yaa layta kaana kaamila mu ne benn waay bu xiifoon ñetti fan lekkul ma nekk ci jàkka ji waroon ndogu ma dégg muy ñaan ndimbal lu mu lekk ma jox ko sama ndogu loolu la ma yàlla won ne ma jox na ma comme daggitu mburu laa ko joxoon yàlla defal na ma benn puur ci biir aljanna buy defar mburu man rek maa ko moom mu ne aka neexoon mu nekk kilo man daggit laa joxe ñu fay ma puur kon su ma joxee woon kilo dañ may jox ñu ne dañoo dégg nga ne yaa layta kaana jadida aka neexoon muy lu bees mu ne benn waay bu soloon yére yi rab bëgg a julli si ci jàkka ji ma gis ne li mu sol dafa rab ma dem indil ko yére yu rafet jox ko mu ne yàlla daan may fay ci biir aljanna firdaws ay magasin yoo xam ne yépp yére sunduk la ak istabra mu ne aka neexoon muy yére bu bees te man waa jooju yére bu ñu fóot ay at laa ko jox kon su beesoon lan la ma yàlla di fay kon mbokk yi suñ nee ngir yàlla tekkiwul juróom nga war a joxe tekkiwul fukk nga war a joxe da ngaa war a xool li nga gën a bëgg nga génne ko ci sa poos ne lii maa ko joxe ngir yàlla ayaamun garib naqulu bi idaadil munabba daiman naqumu bi idaadil munabba xawfan min attaaxuri an ilmadrasa aw iljamia aw ilamal waaye wa nunsi muqaabata muqaabalat allahi fi salaati alfajri ñun ñëpp suñu mbir lool la dañuy jóg préparer réveil bonne heure nga avion bi war a dem ñu ne sept heures sept heures la avion bi war a quitter sept heures nga dégg waa ji mu ne kon day deux heures moo ma fa war a fekk te sept heures ci ngoon la war a dem mu dem aéroport deux heures ci ngoon allahu akbar avion bi minuit la war a dem waa ji dem 6 heures ci ngoon élève bi day jàngi fajar nga dégg yaay ji ne ko teelal tëdd parce que da ngay jàngi fajar war a tardé préparer réveil bi préparer portable bi sax pour mu yee ko dañuy préparer pour duñu tardé école dañuy préparer pour duñu tardé université dañuy préparer pour duñu tardé liggéey waaye kenn ci ñun du préparer pour waxtu yàlla yi duma ko tardé fajar naa ko julli ci heure naa julli tisbaar ci heure naa julli tàkkusaan ci heure naa julli timis ci heure naa julli gée ci heure naa jàng sama waqf naa def sama salaatu duha ci heure déedéet adduna rek la ñuy préparé pour duñu tardé allahu akbar benn jigéen doom ji day def examen mu xëy julli fajar ba pare yee doom ji ne ko jógal julli doom ji bañ a jóg waaw jógal julli heure bu jot na xale bi bañ a jóg waaw ne huit heures lay dugg na tëdd ba sept heures dina jóg du tardé yaa ji daal di xëy bàyyi ko mu tëdd xale bi daal di tardé examen bi ñu wàcc ci ngoon daje ci kër gi xale bi daal di yuuxu yaay ji yaay lu tax yeewoo ma ci fajar bi ngay dem pour ma dem gis nga tardé laa examen yi defa nga ko yaay ji ne ko bi nga tardé bu mag bi moo tax ma xam ne bu ndaw bi amatul importance doom ji ne yaay ban mooy examen bu mag bi mu ne ko ñaari rakk fajar yi bi nga ko tardé yitteelu la boobu laa xam ne bu mag bi du bu ndaw bi du baax allahu akbar loolu yëpp mooy suñu problème ñun ñi ñëpp dañuy am doom su tardé examen ñu door ko bu dee ku ndaw ki bu dee ku mag ki bu dee ku mag ki dañ koy génn kër gi ku fi amoon doom mu tardé bac bac mu tardé benn matière wallahi waxuma mu tardé lépp de benn matière mu tardé ko su del sa ci kër gi nga xeex ak moom ay kurpeñ su dee xale bu ndaw la moom bu tardé examen entrée en sixième soo yàq ngay ut da nga koy dóor ba mu xool benn place waaye bu tardee ñaari rakka fajar sa yoon nekk ci waaw doo ko sax yëgal seeram yenn saa yi sax nga romb leen ci kër gi ñuy nelaw ah ñoom de dañuy nelaw yee naa ba sonn mënatuma ci dara nga fàtte qu anfusakum qu anfusakum wa ahlikum naaran nga fàtte qul inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama nga fàtte waqifuhum innahum mas'ulun aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله نحن في أيام غريب أي بس ييمه guddi doy waar rijalun yarawna zawjatihim wa banatihim yalbasna ibaat تزهر مقا- مفاتينهن ولا يغارون ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى أنهم متفهمون ومتحدرون ومتحررون bëccëg yi doy waar yu yéeme nga gis borom kër ci këram jabaram def yaramu neen sol lu bon xàppati xóotal nga gis ay doomam yu jigéen dangal paccal génne seeni awra nga gis leen ndeysaan so- ñoom du ñu fiir dara du yëngatu ci lo ci ñoom noonu la ñuy xoolee seen soxna yooyu noonu la ñuy xoolee seen doom yooyu ak seeni yaramu neen ak seeni awra soo leen ne waa yow sa waa kër ñu ne non in- instant yi adduna bi dafa ubbeeku quoi dañ adduna bi dañ ko war a ubbi ndeysaan dañoo war a ubbi adduna bi quoi ñu bàyyi nit ñi ñu am liberté quoi waaw nga nekk bu nga dégg xale yi naan paa bi dafa comprendre quoi paa bi nandite la xam na nu mu demee waaw paa bi du ñu indil benn problème waaw kër gi moom amul benn problème waaw ndeysaan nga bàyyi say soxna ñuy sol lu xaraam nga bàyyi say doom ñuy sol lu xaraam góor ak jigéen foo ko teg da ngaa avancé foo ko teg da ngaa am liberté foo ko teg adduna bi dafa ubbeeku foo ko teg instant yi nous sommes au septième siècle xaw ma au vingt et unième siècle ci yooyu nga koy teg ay ay ay waxu falaa falaa bis boo duggee bàmmeel li nga xam bis bu ñu la jëlee ci jàkka ji teg la ci jaag bi yóbbu la ba ci pax bi gas ba mu xóot ci armeel bi ñu dugal la li nga xam ne ñëwoo fi woon pour dañoo ubbeeku ak adduna bi dañoo war a avancer da nga fi ñëwoon nekk responsable yàlla ne la sa doom ak say njaboot yow yaay responsable yowmal qiyaama ayaamun gharib na subu baaduna baad wa natakallam fi aaraadi xalqi llah ونسينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد jamono ju doy waar saagawaate xaste jawaate tamaata dëmm yàq daru nit filmer ko dugal ko ci internet bi wala dagg ay bandam dagg ay vidéom dagg ay waxam montage pour jaxase kook àdduna ñu fàtte maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid fàtte ëllëg yowmal qiyaam balaa yowmal qiyaam àdduna yàlla mi ngi la boole ñaari malaayika kenn ku nekk ci ñun yàlla mi ngi la boole ñaari malaayika sooy dox kii ci kanam kii ci ginnaaw boo toogee kii ndeyjoor kii càmmoñ boo tëddee kii ci bopp bi kii ci tànk yi lan lañ lay wut yàlla nee na maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid loo wax ñoom ñaar ñoo koy bind kenn kaa ngi tudd raqib kenn kaa ngi tudd atid loo wax rek ñu bind kiraaman katibin yaalamuuna ma tafaaluun yàlla ba mu leen ba mu ba mu ñuy booleeg malaaka yooyu yàlla daf leen a tagg yàlla da leen a sellal yàlla da leen a setal doog doog lay sant nañ ñëw ñu garde doomu aadama mu ne kiraaman ñu tedd lañ yàlla moo leen tagg ñoom kon duñ la sosal duñ la sosal duñ la bindal loo deful duñ la waxalul loo deful kiraaman kaatibiin yàlla mu ne ñu tedd lañ ñuy bind lan la ñuy bind mu ne yaalamuuna ma tafaluun ñoom xam nañ ñoom xam nañ yow li ngay def lépp loo def ñu enregistré ko yóbbul ko yàlla tabaraka wa taala kon lépp looy waxati lépp looy binditi fexeel nga wax ci nit ki lu baax soo munta wax lu baax nga noppi man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut jeex na tàkk da ngaa gëm yàlla gëm àllaaxira waxal lu baax te noppi amoo loo baax loo wax noppil ndax ëllëg li ngay wax dañ la koy laaj ayaamun garib ay fan yu yéeme bëccëg yu doy waar yadfauna almaal li tajmili ashkaalihim wa yajizun an tajmili axlaaqihim ragama annaha bilmajjaani la ilaha illa allah góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp dañuy génne budget pour suñu yaram génne budget pour lu ñu rafetee ban tee laa war a am ban diw laa war a diw ban saabu laa war a sangoo ban yare laa war a sol ban njàppe laa war a def sama yaram ay produit yoo xamante ne taaral yaram dañ koy jaay dañ koy jaay de kenn du ko maye da ngay génne xaalis dem jëndi ñu fàtte ne dañoo war a taaral suñu jikko te produit yooyu kenn du ko jaay produit buy rafetal jikko kenn du ko jaay fële lañ koy sànni produit buy rafetal yaram ñu dem jëndi boo amee yaram bu rafet te sa jikko rafetul ban yaram ban ban njëriñ la am boo amee yaram yaram bu rafet bu lix buy naññ di nes nes nga xees pej rafet bay bëgg dee te sa jikko baaxul ban njëriñ la am te liy rafetal sa yaram da nga koy jëndi bu dee yére yi bu dee takkaay yi bu dee diw yi bu dee parfum yi da ngay jëndi waaye liy rafetal jikko kenn du ko jaay kenn amu ko nag waaw moo tax yaram yi rafet jikko yi yàqu da ngay gis booy ut yenn këyit yi wala nga bëgg yenn fonction yi ci Sénégal ñu ne da ngay uti casier judiciaire wala nga uti bonne vie et mœurs nga gis waa ji ñëw ñu indi bonne vie et mœurs lépp a baax ndeke jikko ji baaxul trois trois jours un mois trois mois quatre mois bu ñu ko dénkee ay milliards mu sàcc ko loolu mooy problème mu Sénégal ñiñ fi jël ay ministre ak député ak sàcc yëpp seeni kayit dafa baax boo xoolee kayit dafa normal waaye jikko yi baaxul li ñu leen dénk yëpp kenn liggéeyu ko ci lépp lañ sàcc looloo tax tey nga gis ay ñu ñu feebar di dee tey jii fi may wax ak yéen jumaa ji li fi ñëw ci ay nit yuy ñaan luy laaj ñuy laaj ndimbal ay ordonnance ak lu ma xamul ëpp nañ fukki nit fukki nit ëpp nañ ko ku nekk mu ngi ak ordonnance këyit bu bees sax te soo ko xoolee nga xam ne kii dafa feebar moom ci boppam nga xam ne kii dafa feebar bu fekkoon ne alalu réew mi jaar na yoon est-ce que jullit dina yalwaan kon nañ ma faj est-ce que jullit dina yalwaan ordonnance nañ ma dimbali am na ñoo xam ne leen ne dañuy tëb dem leen ba beneen vendredi groupe tey ñi ñuy laajal ñenn kese la parce que dañoo bëri mbokk jullit yi yàlla yàlla def ci ñun déggal toog ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla fay leen gis nañ seen taxawaay ci jumaa ji vendredi bële ci kaw dam leen ne place bi borom daf ñu ciy laaj fondement li mu ci defoon ak nangam ak nangam 500000 la ci saase la mat ci saase la mat démb dem naa fay ko démb dem nañ def délégation dem fay ko kon léegi jeex na tàkk jumaa ji suñu jumaa la xeexatuñ ci xëccootuñ ci waa ji li mu ci doon laaj jox nañ ko jeex na waaye lépp yéen la seen alal la yal na yàlla fay leen ni ngeen sotalee jàkka ji yal na leen yàlla sotalee noonu ëllëg yowmal qiyaama ñi ci dugal seen alal yëpp ak ñi yéene ñëpp yal nañu yàlla fay incha allah mbokk jullit buñ jullee ba pare am nañ ci suñuy mbokk jullit yu tawat yu indi seen ordonnance ci jumaa ji yaakaar ci yàlla après ak ñun ginnaaw bañ ko yaakaaree yàlla ba pare ñu indi ko teg ko suñuy loxo pour ñun ñu dimbali leen parce que ñun ñooy jaami yàlla yi waaw yàllaay suñu boroom ñoom ñu yaakaar yàlla waaye indi ko ci jaami yàlla yi pour jaami yàlla yi dimbali leen beneen ba ca tegu mooy insha allah ci kattanu borom bi dimanche bii di ñëw ñi nga xam ne xëyuñu amuñu li ñu def soxla nañ leen ci jumaa ji pour defaraat ko balewaat ko defaraat yépp insha allah lépp lépp loo xam ne dafay xatal fii jullikat yi ñu jéem koo àndal defaraat ko ba mu baax ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu fekk ko allahuma ya haadi ihdina siraat almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا جبنا فنتأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله